rahim allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa jaxal kalaami rashidan wa murshida wa fikkirati nawir wa xalbi arshida kon jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam si yéene bàyyi xel seen seen MKT MMK MK TV ak GM GMT TV ak mbooleem euh, organe de xam si ñu ci fii ci Touba ak li ko wër di émettre li tukkee fii ci jumaay Touba ci ay waxtaan ak ay présentation d'ouvrage comme ni ngeen ko xamee rek euh, Muxaddamatul Xidma ànd kook association des écrivains de la Mouridiya naka noonu waa daayira Rawdu Rayaahin nga xam si mooy mbooloo nànk ci xam-xam fii ci yoonu Murit ci njiital Sëriñ Ahmadou Mbacké Badawi euh, ba weeru safar bi teroo ci 15 safar ba léegi ñu ngi def ay exposition ak ay panel jëm ci ay ouvrage yi nga xam si présenté nañ ko ak ay gaaral jëm ci liggéey jumaay waa ak waxtaan yi nga xam ci waa Rawdu Rayahin ñu ngi koy def kon tey jii ci euh, même bi boobu ñu dal ci sëñ Aliou Mbacke mooy nekk nag jëmm joo xam si kenn dootu ko présenté fii ci yoonu murit waaye tamit ñi ci wàllum xam suñu borom def mu nekk chercheur nekk écrivain jot a bind ñaari téere bi ci njëkk mu nekk Afrovirus mu bind ko atum 2021 te ci euh, leeral wala boog ay xalaat yi nga xam si saa Africa yi mën a cee su ko def ngir mën a développé seen réew waaye seen continent naka noonu atum 2022 wala atum 2020 lu ko jege jege 2023 amul bi nit téere bu am solo tuddee ko le modèle mouride nga xam si waxtaan waxtaan ci lu bëree bëri ci projet de société bi nga xam si Cheikh Amadou Bamba moom la moom moom la ki mu nekk tamit euh, nekk kenn koo xam si day yëngu ci wàllum euh, wàllum. Euh, spécialiste en marché public wala li nga xam si njënd ak njaay ak def noonu nga xam si jëm na ci ay seen wàllum xam-xam kon sëñ euh, Aliou Mbacke ñu am mbégte ci plateau bi xam naa di la bàyyi nga nuyu mbokk taal bi laataa ñuy dëkk ak yéen nag ci thème bi ak lan lañ ci mën duggee ñu lay bàyyi nga nuyu ñi nga xam si ñooy teewlu MK TV ak GM GMT TV euh, ahousubillahi mina sheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Euh, jërëjëf euh, Serigne Bamba ñoo ngi lay nuyu bu baax euh, di nuyu ñi ñuy seetaan ci ci ci lien yëpp ci jële ko ci MKTV ak yu ni mel di ziar bu baax a baax di am mbégte teew fii. Euh, di sant bu baax di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér ak mhm. euh, mboolem njabatuk Serigne Touba ak mboolem cheikh Serigne Touba. waaw mhm. kay Mbacké jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu xam naa ni mhm. waxtaan tey bi rek dafay ñëw ci li nga xam si moom la nekk di màggal di sant la yàlla Serigne Touba. ci tukkee boobu xam si yamoon na ci fukki fan ak juróom-ñett. ci weeru safar ci atum 1895 mm-hmm. muy sàkk ci mboolem jullit rawat na mboolem mbokk taalibe ni bis boobu bu dikkee nag ko sant mm-hmm. mu nekk sens et signification du grand magal de Touba mm-hmm. nga xam si tey boo gisee ñu samp thème bi rek day mel ne am lu tax ñu waral ñu samp ko ndax bu doon fekkontoon ni ñëpp bokk nañ ci dëppoo xam dëgg dëgg dëgg tax sëñ boo rek naka lañ koy defee kon luñ dikkaat naan sens et origine wala yu demee noonu ci magal Touba Mbàkke ñu a xam bi signification bi lan eh, waaw jërëjëf sëñ Bamba eh, yaakaar naa loolu moom eh, yàgg nañ koy wax kilifa yu bari alhamdulillah ñi ngi koy tàmbalee leeral nit ñi ba leer na ci bopp ñu bari. Mm-hmm. waaye comme ni ko tubaab di waxee la répétition est pédagogique mm-hmm. te màggalu Tuuba day bis boo xam ne yaakaar naa bu ni mel mm-hmm. amul ci àdduna ndax soo xoolee fa mu cosaanoo mooy dangay gis sëñ Tuuba Euh, ñu bëree bëri euh, seen bis bi nga xam ne am nañ consécration mm-hmm. la ñuy célébrer ñii seen bisu gane àdduna ñii seen bisu làqu mm-hmm. waaye nga gis euh, Serigne Touba bis bi nga xam ne ci Zahir. Mm-hmm. boo ko doon xool da ngay yaakaar ne mooy bis bi gën a métti ci àdduna am ci Zahir ndax bis boo xam ne ci ay tuuma yu teguwul fenn ci ay machination ci ay pexe nee nañ nañ ko jël yóbbu ko génne ko ci ay mbokkam ndax booba ragal nañ li muy woote Mm-hmm. ragal nañ idéologie am mm-hmm. jàpp nañ ne itam euh, menace la ci mm-hmm. euh, autorité coloniale euh, ndax Serigne Touba boo xoolee foofu dafa nekk sax menace ci lu bari menace ci autorité ñi ñu doon wax ceddo yi ndax jàpp nañ ne jël taalibe Serigne Touba yi daanaka toppatuñ leen nañ leen war a toppe menace la aussi ci maanaam ñi fi nekkoon ci ci di ay tubaab yoo xam ne bëggoon nañoo samp en tout cas seen influence ci Afrique Euh, surtout ci Sénégal. Mhm. ba tàmbali woon ko ba nga xam ne faagaagaloon nañ yenn wuur yu baree bari. Mhm. Euh, kon euh, ñu ne surtout ñu koy accuser ne ñenn ñi nga xam ne roi yi lañ doon topp te benn jamono gisatuñ leen. Euh, ñu ñu jiiñ ne dañoo mobiliser wu dem toppi ji sëñ donc mu ne woon menace ci ñoom mhm. waaye itam menace la woon ci yenn benn conception boo mhm. xam ne gisoo woon nañ ko diine mhm. te mu ñëwoon wane yoon wu leer naññi euh, siraatul mustaqim euh, gëmloo ko ay taalibeem di leen tarbiya loolu indi nag menace yooyu yëpp ñu ne woon nañ ko génne Euh, ngir euh, sànki ko mm-hmm. euh, ci bis boobu nag nga gis kon bis bu metti bis bu bis bu nduru lu metti bokk mm-hmm. bis bu nduru lu tiis mm-hmm. mu ne ah bis bii laay sant suñu borom te bu ñëwatee nañ ma sant la suñu borom loolu njàngat la ci société bi ñu nekk jàpp naa ne ku ci jàngewul rek dina dina dina dootoo jàngati ci dara ndax sëñ Tuubaa da ngay gis ne bis boobu maanaam kon nga xam ne taalibe bi mhm. euh, fi mu war a jànge mhm. li mu war a jàng ci loolu mooy mhm. euh, bis lu mu metti metti su fekkee yow am nga focaliser wu nga ci ay objectifs yu leer xam li nga bëgg rek euh, yow kon contexte bi nga nekk mën nga ko bañ a bàyyi xel lool xam ne da koy romb waaye objectif bi rek ngay teg bët te boo seetloo sa Sëriñ Tuubaa foofu la rawe ñu bari ndax moom lam bëggoon mooy tasaare njàngum islaam euh, yëkkati turu suñu suñu borom subhaanahu euh, dindi fi wala màbbal lépp lu dul dëgg jéem a décomplexé nit ñi ngir ñu mën a euh, xam lan mooy seen dëgg-dëgg mission ci kaw àdduna loolu moo nekkoon objectif am mhm. te comme xam na ne loolu moo nekkoon objectif am mhm. circonstance bu mën a ñëw wala obstacle bu mën a ñëw wala pakk bu mën a ñëw mhm. day jàpp ne rek aw ciw yoonam la mhm. waaye xam na fa mu jëm mhm. kon euh, ci loolu mu sant ci suñu borom bu baax a baax te itam xam ne euh, maanaam bu dul woon euh, maanaam circonstance yooyu ni mu demee amaana ni mu bëggee tasaare Mm-hmm. du ni mel. Euh, kon nga xam ne euh, sabab bi. Mm-hmm. Euh, fi nga koy gisee mooy mu ne mm-hmm. muy xaadimu rasul. sababu xaybata anallah araada anallah bin hujaa. muy ba ca kii ba waa nakuunu. xaadiman shaafian xaadiman fi daw mi. xaadiman fi daw mi. waa an akuna. shaafian li xaw mi. kon nga gis ne maanaam euh, ñaari euh, dimension yooyu. Mhm. Euh, tey rek jërul sax ngay laaj ba xam atteindre na ko wala déet. boo mhm. gisee tey màggalu Tuubaa rek. Mhm. nga xam ne kon atteindre na ko. léegi kon sabab boobu nag ci mettit yooyu. mu woote ne nañ ma sant la suñu borom. yaakaar naa njàngat la war a doon. ci ci ci ci ci jamono bu nekk surtout ci. période de crise ñu xam ne jamono lu mu metti metti ñu amee ay objectifs yu précis mhm. euh, jéem ko atteindre te gëm yàlla doyloo yàlla wóolu ko mhm. rek danañ ci jot mu ne mu utiliser aussi terme bu am solo muy cant. Mm-hmm. Euh, day euh, rendre grâce mm-hmm. euh, laction action de grâce. Mm-hmm. wala mu nga xam ne maanaam la gratitude. day day loo xam ne nit ñi mën nañ koy bañ a seetlu. waaye ci la lépp tënku. ndax sant yàlla. yaakaar naa am na fu muy waxee yaa rabbi in ataytani fa shukr wa in manata faridan wa sabr ci wasilatu rubox mhm. maanaam day wax ne soo ma mayee mhm. ma sant mhm. waaye boo ma xañee itam ma muñ te ma gërëm te muñ nga xam ne kon eh, maanaam kon ci ñaari dimension yëpp mooy eh, sant rek yamul ci eh, bànneex waaye fa mu gën a méttee ci la jaam bi war a sante ndax xam ne suñu borom bàyyiwu ko fàttewu ko doyloo googu nag mu doyloo suñu borom ak wóolu googu mu wóolu ko ca tàmbali ba jàpp naa ne jàngat la bu ñu war jàngat ñun képp ku ñëw ci màggaruk Tuuba war fee jëre darsu boobu xam ne suñu boroom rekk a fi nekk ku ku am moo la may ku ñàkkit ci moom ci coobareem rek la léegi nag nga xam loolu xam ne aussi euh, am objectif yu leer naññi nga jublu ci xam ne yow fii nga jëm mooy te fi nga jëmit am na ku la fay koo fay àndal muy suñu borom du la bàyyi mukk te su fekkee ci lu dëgg nga nekk ci lu jub nga nekk mm-hmm. nga nga jéem a xam ne aussi lu man di ñëw naqar ak bànneex lépp mm-hmm. eh, ci saw yoon rek la lay fekk mm-hmm. waaye bu mu la détourné mu ko ci sa objectif macha allah eh, indi nga ay ay càmbar nga ko ci ay aspects yu bëree bari ñëw nga ci wàllu cant gi waaye ci ban niveau cant la ñuy def Cheikhul Khadim ñëw ko ci diggante moom tubaab bi ndax eh, ku ni màggal rek mën naa ni sëñ bu jëkku-jëkku rek defal boppam daanaka te it newoon na ci ruxam di def lam doon def mhm. àdduna dëjmal ko mhm. ndax boo xoolee dafay ñëw indi fi loo xam si mën naa ne amul woon mhm. bokk na ci tubaab bi niñ gisee ni kii am na benn prestige boo xam si daal te comme ñoom nit ci nguur la dem nañ ba ñin impôt bi xaw naa demee noonu nit ñi ñii di tuub ay ceddo di julli ci lislaam di nekk ay murit mu dem ba suñu borom may ko may ko mu am ay nit yu bëree bëri yoo xam ñu ngi koy topp te it nag mu nekkoo koo xam si dafa wan ginnaaw nguur ndax gannaaw ba fii Maam Mor Anta Sali jógee ak lañ ko ci buureeg yooyu ñu gis ni kon kii day mel ni saa genre menace la boo xam si daal bu dajalee mbooloo moom daanaka mën naa jeexaat Mmh. daanaka te loolu nag ñuy tegoon sëñ bi mmh. ba ñenn ci buur yi mmh. dem wala di man man ni koy complété wala di ko sosol loo xam ne defu ko ba tubaab bi am benn xel mu ñaaw ba daanaka Cheikh Ahmadou Bamba daal nekk kenn ko xam si xaw neen di ba ba yoon ba yoon woowu yoonu géej gi ñëw daanaka dikkal nga ñu dikk nga ci loolu waaye dafa am benn aspect boo xam si da cee am solo ñu bëgg cee dikkaat muy sëñ bi naa alamani rahmaani fi safina bi aneen xadim zil mhm. loolu a jàngat la mhm. koo xam mhm. si dañ na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy fukk wax ni boo tegee sama ci ci gi suñu ko doon xamal ne man mii kat ndax la a voulu faire de moi l'intercesseur des e, moo nekkoon objectif bi bu fekkentee ko teg tànk ci gaal gi ñu xamal ko ne ko yooyu mii bis na ko tey kat yaay yaay ko mm-hmm. yaay yaay représenté boo ko mm-hmm. ka nekk Medina mm-hmm. te sëñ bi teewul tawul mu dem loolu na lañ ko mën a jàngate waaw yaakaar naa foofu da comprendre rek na ci ci diwaanu suñu borom moom notion de temps ak notion d'espace day disparaître ndax euh, maanaam suñu borom li mu dogal maanaam li war a xew junni at sax dogal na ko kon maanaam euh, moom nag euh, soo seetloo da ngay gis na teewu koo dem dem bi kon man ni ma koy jàppe mooy li ñu naan pédagogie par l'exemple pédagogie par l'exemple mooy. Mm-hmm. maanaam nit soo leen bëggee dimbali. Mm-hmm. dangay def ñu gis. Mm-hmm. te bari na yenn borom xam-xam yenn wàll yu baree bari. da ngay seetlu ne. danañ jaar waaye théorie bi mooy bari lool. waaye pratique bi du am. te jàpp naa ne bu Cheikhul Khadim demul woon ca géej ga. am na lum lay wax. Euh, maanaam ci ci biir ci muñ. ci nangoo euh, maanaam dëkku jafe-jafe euh, ci gëm suñu borom bu toogoon fii bawol rek demul ca géej ga dina ko wax ñun dinañ ko gëm waaye est-ce que ñëpp danañ ci ànd ndax bariwaa na ñoo xam ne peut-être théorie bi rek ci lañuy ñuy moom nag bi mu toogee jaamu yàlla ba toll fa mu war a toll ci maqaama tukki bi nga xam ne soo ci gisee ba ni mu demee Gabon ak fépp ak ni fa muñee ak ci biir muñ gi dem ba nga xam ne bañ ba sax euh, ndeysaan ñu dem ba tàggee ko fii mm-hmm. ne sëñ bi làqu na mm-hmm. Mm-hmm. ba ñenn ñi nga xam ne koo xam ne rek nga xam ne ku amul pas-pas rek kon day bàyyi su boobaa euh, mu ñëwaat dëkk bi mel nii mu mel ñu yóbbu ko euh, maanaam gànnaar yóbbu ko ceyeen yóbbu ko njaareem Euh, étape yooyu yëpp itam bu ci nekk. Hmm. nga gis façon résistance bi mu fa nekkoon. Hmm. ak euh, maanaam euh, contraintes yi ñu ko doon teg. Hmm. soo xoolee fu mel ne tukki ba tukki Gabon bi. da gis ne maanaam. ay contraintes physiques lañ ko doon gën a teg. Mhm. ci ay métital mooy ci zone boo xam ne. Mhm. Euh, zone tropicale la. Mhm. boo xam ne ña fa dëkk sax. daanaka seen seen seen seen durée seen kii de vie du du du sori lool. mu nekk loo xam ne si buñ koy tànn tànn ko ci hasard daal. ko baax daal. bu baax ko buñ ko yóbbu woon Saalum wala feneen. dañ naan milieu bu mu miin la. ñu ne kon dañ koo bëgg rek génne ci njabootam. bàyyi ko foofa. ngir influence am waaye sabab bi weesu woon na foofu. ndax Gabon foo xam ne. humidité bi. Mhm. Euh, maladie tropicale yi fa nekk. Mhm. ak problème yi fa nekk yëpp ak ñoo xam ne aussi fekk dañ koy yóbbu ci milieu boo xam ne peuple ya fay nekk daanaka. seen niveau de civilisation day des lool. ba pare dañuy xaw a sax très euh, maanaam réticent ci côté côté islam ak ni sëriñ bi bëgg a dundee. Mhm. nga xam ne mooy ba muy nettali rek naan bu daa bu julli julli julli ga julli koor ga xaw julli julli. c' ko korite ga nga xam si bu kàbbaree bu jigéen ñi bu si ñu ree. <laughs> loolu dëkk boo xam si maanaam lislaam moom tumuraanke woon bu baax a baax léegi nag nga xam ne kon donc mm-hmm. boobu sanction physique day ñëw mm-hmm. ak niñ ko lottale woon ci nga xam ne fiñ ko yóbbu mm-hmm. jàpp ne rek kon kuñ fa sànni la ngir euh, su doon euh, nitu kese euh, mu ñàkkee fa bakkanam léegi fañ ko yóbbu foofu ak métit yooyu métital physique ak métital psychologique yooyu mu résister ñëwaat ak sorele ko njabootam nga xam ne soo gisee ci asiru xusuur ya xalat wala ahlu an mm-hmm. yi tafarraqat mm-hmm. nga xam ne ndeysaan dem ba tas jàpp ne tasaare nañ njabootam mm-hmm. tasaare nañ lim doon woote mu ñëw gën a dëgër bi mu ñibbisee ñu ne ah li kat dana wàññi ko mu ñëw gën a dëgër li indi loolu itam day jar leeral mooy ndax sëñ Tuubaa dafa préparé wu woon ci loolu mooy différence u chef ak leader chef suy jiite day intimider. Mhm. leader buy jiite day inspirer. Mhm. te day am différence. Mhm. nga gis kon sëñ Tuubaa leader la woon. mooy leader dafa fexe ba inspirer gëm-gëmam. ak fa mu jëm. ñi ko waroon ñëpp. nga xam ne kon tubaab bi da koo yóbbu. Mhm. waaye bàyyi fi ay sëñ tubaab yu bari. yu bari bari. Mhm. looloo dundal yoon wi. Mhm. maam Thierno Ibra Faati. macha allah maam Cheikh Anta. Cheikh ñoom ñëpp ku ci nekk rek. fa nga dem am sëñ tubaab nga fa. ndax sëñ tubaab leen inspiré. ba tàggat leen ba ñun fu ñuy dox rek ay sëñ tubaay dox. fu ñuy waxee sëñ tubaay wax. loolu li ci gën solo mooy ku tedd ki laataa muy dem ci géej gi am na maqaama bu mu àggoon. waaw te lu jiitu loolu mhm. defar na ay nit yoo xam si ku ci nekk àggan nga foo xam si mhm. keneen ku dul sëñ bi sax mhm. yow bu loolu dikkee ci yow nga mën koo nga mën koo côté kon su day day wax day day day indi ni sëñ bi eh, ba muy dem xam naa danañ ci ñëw mooy indi nga motif daanaka loo xam si mënut a war a ñàkk mhm. pédagogie par mhm. exemple mhm. waaye jàpp naa ni li sëñ Moussa Ka naan na tool di kerkiraale awliya yi dañ da ci dugg ndax boo xoolee li histoire yonente yi wala gaa yu baax ñu ci bare bari suñu borom leen ba pare dem leen yéegal ci grade yooyu kon loolu tamit day mel ni <laughs> bu baax <laughs> mooy li sëñ Moussa Ka naan te bala laa wóolu ba jox la mbir ya nga muñ yan ba aw ca tànki mbër ya tànki mbër ya euh, kon lu wér la euh, kon da gis ne maanaam loolu moom mooy dimension spirituelle bi nga xam ne suñu borom moom bu la bëggee rek. Mm-hmm. da lay nattu. Mm-hmm. soo xoolee yonent yi koo ci gis rek. Mm-hmm. nattu bi mu doon dund nga xam ne yonent yàlla ayub. nga gis Seydina Muhammad rek. nga gis eh, ni ko nattoo ci ñàkk benn jamono. nga gis eh, Seydina Isa eh, ci tuuma. ku ci nekk rek yonent yi mu bëgg. yonent yëpp da di nattu. rawatina ay wàlliyu ak koo xam ne li ñu naan euh, tamit ab jaayante la. Mm-hmm. ndax dimension boobu. Mm-hmm. tamit du du lu yomb àttan. Mm-hmm. te soo koy wax rek doo man sax doo ma dugg ci wàllu baatin xam naa loolu dañ koy bàyyee kilifa yi. waaye ci ci ci rek lu naturel ci zahir si rek. soo koy jàngat da nga gis ne lu yomb comprendre la. mooy dimention xaadimu rasul. ak dimension ngir intercesseur. ndax maanaam su ko dundee. nga gis mu dem ñëw. tubaab bi ne ah kon léegi nañ ko yóbbu gànnaar ci Cheikh Sidiya foofa itam ñu ne comme li ko waa Bawol ak waa Jolof ak waa Njàmbur di kañe mooy dimension xam-xam bi ak euh, bëgg rasulullah gi léegi bu ñu ko yóbboo ci ay sëti yonent bi man dina am seen complexe su amee seen complexe euh, su boobaa daanaka day day dugg ca biir seen ngir ya ngir maanaam euh, yoon wi ñu dem. contraire bi am. contraire bi. contraire bi am. Mhm. nga gis ba léegi da ngay gis màggalu Touba naar yi macha allah. dañuy ñëw exemple kay moo ci am mooy Abdallah dem ñu ci waxtaan. waaw fi ñëw ci ay Mauritanie ak ñoom dimension bi xam si toll na ko ci gëm xaadim rasul. jeex na daanaka amul feneen. te loolu day firndeel waxi Cheikh Samba Diarra Mbaye ñu doon wax ca gànnaar. mu mhm. daal ni deful waxul. Mhm. dafa dëkk jaamu ba am lu mu am. Mhm. buur yàlla taas ñu ci moom mhm. taasaale gànnaar. macha allah nga xam si tey day boo ko dee jël day mën naa am ñaari sens. Mhm. xam nga bu dee deful waxul. boo dee jàng deuxième motif exil sëñ bi. da naan la daanaka ils ont ils étaient peur sëñ bi mën naa ne ak ak euh, la xewoon ba ñuy ba ñuy yóbbu bagage ñu yaakaar ko fa jaar bi ma ngay ma ngay. préparé <laughs> wu ba buur si ñëw di di di leyal sëñ bi. mën naa loolu mooy objectif bi. jàpp na ni kii dafa préparé pour songaan leen. ñii na fi jóge gaaw ñu yóbbu ko gànnaar waaye Cheikh Samba Diarra Mm-hmm. xool motif bi moo nee ne sëñ bi deful mm-hmm. waxul mm-hmm. waaye dafa dëkk jaamu ba am lu mu am pour yàlla nag taas ñu ci mun rek a taasaale gànnaar wallaahi moo tax mu sabab la beneen sabab boo xam si ce n'est pas peut-être ésotérique mais ésotérique nga xam am boo xam si day génn day génn fi xam ba gànnaar ga jeex def leen moytu ba woon ba tey ku dul ñoom di leen gànnaar dañoo bari woon xam-xam. Mhm. soxna yi sax dañ daan mokkal téere yi mhm. ci wàllu ci wàllu xam-xam lu ma doon mhm. sëñ Tuubaa ñëw nag daal leen di daal leen di jombal loolu mooy contraire bi xam si ñoom bañ koy yóbbu naka naan kii daal bu yeggee mën naa leen mën naa complexité bu dee arab rek bu dee xam-xam ñoo ko gën a dégg fa yàlla ñu jëm nag naar yëpp daal di ñëw jébul si te alhamdulilah sëñ Bamba boobu itam boobu ñëwul woon sëñ Tuubaa yem bawal rek di wax amaana kenn dana jam ne ah moom kat daa fekk ñi nga xam ne jànguñu. Mhm. mu leen di wan xam-xam. Mhm. ay su génnoon. Mhm. waaye fekk ñi nga xam ne fa la ñuy ndamoo xam-xam fa la nit ñi doon euh, maanaam puiser lu baree bari mu dem jommal leen bañ nekk ay taalibeem. foofu itam mu réussir ko avec brio. léegi ba tey pédagogie par exemple bi. ba tey kon mi ngi ci processus su. Xaadimu Rasul suñu borom def na ko ko mhm. waaye day mu ngi ci mhm. di dimbali nit ñi mhm. te étape boo ci gisit danga nga gis kenn ku ci jàng rek defar àddunaam ba mu jag ñu jële ko gànnaar ceeyeen gii ceeyeen jolof mu tàng lool metti lool lu baree bari ñàkk fa nga xam ne da ngay gis kon euh, contrainte matérielle ñëw te te te ci gën a doy waar sax mooy contrainte yi ñu teg daal di ko bëgg a fekk sëñ ci wàcceen li ngay remplir bu baax nga xam si mhm. euh, na sax ci archive tubaab yi. yi mu ngi ga ma maanaam dañ doon def benn liste boo xam ne ku ñëw ak li nga indi. loolu boo demee ci. Euh, Cheikh Ahmadou Bamba Fatou Jotite ko. waaw Cheikh Ahmadou Bamba la sainteté. Mhm. bu Abdoulaye Faye mooy mi ngi ci. Mhm. nga xam si dañ ko def par date. yaakaar naa le tàmbalee. daa def ni diw. ñëw na fi ànd ak diw. joxe nangam sëñ bi bañ paree ñu compter ni sëñ bi bañ ci weer di gi fi nekk ba sa kii boo conté li Cheikh Khadim yor ci mu yor ci ay mhm. ci gàtt ci mhm. giléem ci mhm. dugub ak yooyu yëpp te daanaka murid di ko doon def dana nañ jaral lu ne ñu koy dox dem ba ci indi fa fekk Cheikh Ahmadou Bamba euh, léegi léegi foofu kon nga xool euh, su ne sarki leen ma yàlla ak pédagogie par l'exemple boobu léegi nga yaakaar ne murid bi toog nii ci vingt et unième siècle euh, lépp ñëw mais su jàngatee ci détermination bi mag ñooñu amoon nga xam ne di ñaa wut autorisation pour mën a def loolu boole kook seen alal. Mhm. ak coono bi nga xam ne euh, moyen de communication yeeg moyen de transport yi mel woon nii. Mhm. léegi jamono boobu ca ca yéen. Mhm. est-ce que épreuve boobu mënoon naa ñàkk. ngir ñu jàngat ci. boo koy jàngat da nga naan déedéet. lu mënul woon a ñàkk la. ni Gabon mënul woon a ñàkkee. gànnaar mënul woon a ñàkke ngir propager ak dindi complex boobu amoon mhm. ci diggante tam mu nekkoon complexe bu yaatu ci diggante nit ku ñuul ak arab mhm. surtout ñi nga xam ne ay jullit lañu woon mhm. nga xam ne fu ñu giseeb naar rek jàpp nañ ne moom waratuñoo wax complexe boobu dañ. mu ñëw ci yéen nga xam ne maanaam defar taalibe yi. ak seen détermination. ak jamono bi foofu environnement bi ni mu méttee woon. ñu enduré ko ba nga xam ne ba romb ci ba nga xam ne nag amatuñ ci pexe gis ne. engouement bi dafa gën a yokk waaye wàññikuwul. ndax su ñu ñëwee def ne dañuy contraindre journée aussi nangami nit ay ñëw. yooyu yëpp teewul nit ñi. gën a xabtalu. da ngay gis kon ay contraintes ci lañu nekkoon. mais benn moment ñu dem ci tentation. tentation bi mooy fu mel ne Jurbel mhm. nga xam ne indi ko ci benn capital boo xam ne mhm. ci loo foo xam ne en tout cas am na luuma am na yeneen yoo xam ne mhm. amaana su taalibe yi ñëwoon jaxasoo ñoom ci yenn jaxasoo yi dina dindi seen pas-pas waaye da ngay gis ba tey au contraire soo xoolee da ngay gis sax euh, biñ koy wax wàllum école boobu ñu bëggoon a samp njaareem ca waxtaan wu siw woo kilifa ya dafa ñu mujje mooy nañ leen jox jëmm yi te des te njëkk leen ci jikko yi kon nga xool kon euh, ni mu defee woon objectif mhm. defar doomu aadama mhm. parce que jëmm moom carapace la rek mhm. euh, te am na lu ko jiitu soo gisee ca Munawwirus Sudur sax daf koy wax euh, yaakaar na al qalbu kalma la ko fil aadaa'i mahma yamil tamil ma qatidaa'i ca Munawwirus Sudur nga xam ne xol kon mooy baasu lépp léegi da ngay gis ndeysaan te sooy seetlu sax ay mun a mu lay yinu nangam wala terme yooyu lay wax ci euh, nga xam ne moom kon objectif am mooy xolu doomu aadama. parce que xam na ne su ko defaree rek. Mhm. mu leeral li ci des lépp leeral société bi mu nekk. ci la ci lay waxee naan les mystères divins se pénètrent dans un cœur pur nga xam si tey mhm. xol mhm. moo koy mën a percepté ba koy moo tax Sesam jaar naan te sama woote bii ku xëy. mu tàbbi noppam lu def boppam ku doy. macha allah daal di sampam laaj daal di xolam <laughs> nga xam ne say. xol xol boobu muy wax. peut être mën nga ko jàppee ko métaphore waaye mën naa ni. day nekk loo xam si tey boo gisee lumière divine rek mhm. nga xam ni xol moo koy mën a mhm. jot ba mën koo jàpp mhm. si soit kii nekk taalibe Cheikh Khadim wala ab ba gaa waay waay yàlla nga nangul ko mais bu fekkentee ni xëy nag ba ko ko rek dañ naan kii day mel ni xolam moo xolam baa gëmm mën ko jàpp mën na koo jàppee noonu signal ñu bëgg a ñëwaat ci ba tey ci màggal gi ndax li ñuy wax lépp mën naa ne génnul màggal gi ndax màggal gi moom boo ko waxee lépp rek mi ngi tukki jëm ci tukki géeg ak itinéraire bi nga xam ne Sëñ Tuubaa def na ko mu nekk nag loo xam si man sama dégg-dégg wala gisin mhm. day mel ni màggal gi moom mhm. ku yomb ci rek day mel ni yow màgguloo mhm. ndax loo xam ay coonoo ko sos <laughs> ndax day gis contrainte yi sëñ bi daanaka mu wax sax mu jàpp dat bi nga xam si ci lay génn ci lay dem ci coono yee mu koy mu koy màggal kon ki nga xam si day màggal si maanaam ndax ab taw war na ko war a téye wala ndax tali bi daa xat wala ndax fi mu jëm dafa sori yooyu jàpp nga ni waras na koo mën a màggal gi ndax jàpp nga ni yow ci ci bernde gi rek lañ lañ war a yem wala am na ci yoo xam si waras ñàkk ci jaayante waaw waaw foofu itam day jar taxaw bu baax. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax jàpp naa ne. ñi ngi wax boobu ba tey kuy màggal si ndax ab taw war na koo téye. Mm-hmm. waaye dafa bokk ci façon yi ñuy sant suñu borom. mooy defar ba taw bu ñëw dem. ci façon yi ñuy sant suñu borom la ndax booy fàttaliku. dañ lay wax ne sëriñ Touba dafa waxoon mag ñi. di leen laaj naka la ñuy sant yàlla. Euh, maanaam su soo mënta wax sax baat yi directement mais mhm. dañ ci ci ci sens bi rek daf mhm. leen bi mu leen laajee ku ne wax ko mhm. daf ne leen amaana noonu népp ay mbir yoon la yu ñuy sante waaye sant bi dëgg mooy suñu borom bu la defalee mbir da ngay jël lam la defal def kook laxasaay gën a liggéey ndax xam ne ki la defal yor ki la defal li lépp mhm. yor na lu dul jeex mhm. te man laa defal lu ëpp li mhm. ci sens bi buñ koy wax loolu nag liñ ci jublu mooy maanaam euh, shukr mooy euh, sant cant googu euh, maanaam aussi du cant gu kuñ naan maanaam une reconnaissance passive mais ça doit être une gratitude active mooy lan mooy nit ni muy sant yàlla liggéey ci la bokk liggéey mooy suñu borom may na ma ay baar ay loxo may na ma ay tànk may na ma am xel kon ni ma koy utiliser ngir defar société bi ma nekk loolu itam façon sant suñu borom la li ma ci jublu mooy. Mm. Euh, murit bi euh, te itam foofu. Mm-hmm. fenn rek laa fi ànd àndeek lu bari mooy. Mm-hmm. Euh, xam nga comme ca wakaana xaqan yaakaar naa dane wa jahtu kulliya bi hamdi wa shakur ila walil muminina wa shakur mm-hmm. loolu maanaam jàpp naa ne bayit boobu rek am murit bu xëyee jàng ko. waratut a jàmbat. waratut am lu koy metti ndax sant mu mënta euh, àndut ak euh, jàmbat. jàmbat kon euh, mm-hmm. dafa am dimension bu mu lay jox. Mm-hmm. maanaam boo xam ne positivité à tout épreuve en toute mm-hmm. circonstance. lu mën di xew. yow nga xool finalité bi xool say objectif sante ko suñu borom. nga xam ne su ñëwoon sax ñu teg la kaas. te jox tagal la ab kaas. da nga nga xool ñenn ñi ñi pessimiste dañ naan kaas bi de feesul. xaaj bi xaaj bi dafa vide. Mhm. ñi optimiste dañ naan xaaj bi dafa fees. Mhm. murit bi nag ci ñi optimiste la war a bokk mm-hmm. mooy lu man di xew ñu xam ne yàlla may na la mm-hmm. te lim la may mm-hmm. moo ëpp fuuf lim la xañ ngay ngay ngay nekk ku optimiste waaye ci biir optimisme boobu nag ci optimisme bi mooy yow su obstacle taxawee sa kanam nga xam ne ala kulli xaal yàlla may na lam xel may na lay cër yoo xam ne da nga ko mën a contourner bu mu dox sa digganteeg ñëw euh, taxawal euh, sant la Sëriñ tubaab bisam bi waaye itam ci beneen côté nga am nga utiliser xel moomu mhm. ngir développer ay stratégie yoo xam ne mhm. euh, ëllëg ngi ci biir mhm. loolu obstacle yooyu euh, keneen kuy ñëw ngir ñëw màggal si du ko fa fekk loolu nag mooy euh, plan pour développement ville léegi loolu solution boobu fu mu war a tukkee ci ci communauté Touba wala ci nguur gi wala ci ay ñeneen daal waaw xam nga xam nga set un ensemble gis nga loolu moom dañuy dañuy yomb lool ñu ñu kenn bàyyi kenn te suñu borom. Mhm. Euh, maanaam ndox mbiru suñu borom la. Mhm. am na loo xam ne da ko maîtriser am na loo xam ne doo ko mhm. maîtriser. dans les plus grandes villes. lii di inondation ak ay tsunami yu mel noonu. lu ñu mën di euh, déployer ci stratégie. Mm-hmm. duñ ko mën a maîtriser à cent pour cent. Mm-hmm. suñu borom moo moom lool moo mm-hmm. am loo xam ne moo ko moomal boppam waaye nag yow mii jaam may na la xel moo xam ne. di nga mën a teg ay stratégie yoo xam ne en tout cas. su ma waroon a nekk téeméer. dana nekk benn wala ñaar. léegi nag loolu ay ay ay benn benn ay strates yu bari la. ndax euh, c'est vrai que euh, am na ci loo xam ne liggéeyu état la. am na loo xam ne communauté mouride. comme ni ñuy defee participation nangam ak mhm. nangam. Mhm. waree soon na ko caa mën bàyyi xel. Mhm. te yaakaar na am na ci parti boo xam ne sax macha allah. ñu mel ne Touba ci kanam ñu ngi ciy bàyyi seen waar lool. waaye tool day yaatu lool rek tool day yaatu ba nga xam ne. du loo xam ne da ngay xëye rek lépp jag. waaye ki ñëw man li ma li may bañ mooy ki toog tamit. Euh, yorub euh, caméraam di filmer. te pourtant wàññiwu ca dara. moom ci boppam. te amaana. léeg euh, bari waa na ñuy filmer sax. daanaka blocage yu bari ca ñoom lay jóge ndax tabaski day romb. nga jël la lépp dugal ca canalisation ba. wala nga romb taqal. Mm-hmm. Euh, su su yooyu yëpp dajee nag. Mhm. peut-être que euh, lu ñu mën a investir wala lu ñu mën a teg wala stratégie bu ñu mën a déployer. Mhm. Euh, du am euh, du am réussite à cent pour cent. Mhm. waaye nag du tee maanaam ñun ñun communauté Mouride suñu borom daf ñu maanaam Serigne Touba moom dafa am loo xam ne jagle goo xam ne. maanaam ressources yëpp ressources humaines yëpp. dañoo dajaloo ci communauté Mouride. moo tax initiative yu mel ne initiative am wala yeneen baax mm-hmm. ndax façon expertise bu ne am na ci communauté bi mm-hmm. léegi suñu fexee rek ba mm-hmm. boole lépp li tubaab naan synergie yaakaar naa liggéeyandoo xàccandoo dóorandoo ci ndigalal ku tedd ki Cheikh Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg lool tamit jàpp naa lool ne yaakaar naa lii moom souvenir rek lay doon souvenir lay doon waaye signal yi xam naa ni bala ñoo ñëw ci wàllum euh, du ñàkk yóbbal ndax comme ñu ngi ci sens et signification du ñàkk dana war a soññe mhm. ci nit ñi bu ñëwee ci màggal gi laka mhm. lañ mën a def ba jariñu ba am mhm. ngërëmal sëñ bi moom mi nga xam si moom moo ko wootee waaye dañuy ñëw ci point bu am solo bi nga xam si souligné nga ko euh, xëy na màggal nekkul aspect religieux rek euh, financier am na ci économique sociale ñu bëgg ñëw ci aspect économique et financier bi ndax dañuy gis nii Euh, ñi ciy généré seen i chiffre d'affaires mu mu yéeg mhm. dana bari nañ trop mhm. ci ay entreprise ay ñoo xam si ay marché mhm. public wala genre demee noonu ñu bëgg a xam tey euh, milliards yi ñuy dégg nga xam Touba dañ naan ah, màggal gi généré de trois cent wala trois cent cinquante te da ngay xool ni dëkk bi jàpp naa ni war na cee man a gañe tamit maanaam yow ban xalaat nga ci am jàpp nga ni yooyu bu ngeen defee ku ci nekk rek. ni hmm. nga sa bénéfice ci màgg gi da nga am loo xam si da nga ko mën a delloo dëkk bi Touba. waaw yaakaar naa loolu moom. Hmm. Euh, euh, responsabilité bu bari la. Hmm. déjà ci commune bi. ci état bi. ci ni ñuy répartir. waaye itam parce que booy xool. Euh, màggalu Touba dimension économique bi fi ñu koy takk sax. weesu na fa. ndax ndax gis nga dafa am yaakaar naa Adam Smith moo doon théoriser la mais invisible. waaye dafa am loo xam ne nit ki su pas boobu bu ko defee rek économiquement mhm. répercussion yi muy am day yaatu mhm. màggal gi loo ci gis maanaam su dama lay jox exemple rek mhm. ki nga xam ne maanaam borom nag wi ki yar nagam ba noppi di ko jaay si ci màggal gi nga gis ne eh, ki ko jaay ripaas ba mhm. kon yëg na ci boppam mhm. nga gis ne kooka itam ki jaay ripaas bi mhm. maanaam ripaas boobu ca lay dundale njabootam dem jënd ci ay légumes ko borom kiy jaay légumes yi maanaam moom amaana dem na ci boutique ba jënd ca tàngal kon kiy defar tàngal yëg na ci boppam c'est donc c'est un cercle vertueux boo xam ne ka gën a nekk ci profondeur yi Sénégal yëg na boppam ci màgg lu Touba mu xam ko wala mu ñàkk ko xam donc dimension économique bi moom mhm. waxuma la Sénégal mais ba ci bitim réew parce que soo gisee parce que produit yi ñuy consommer fii tamit bari na ci matière boo xam ne dañ koy exporter ñooña di ko exporter aussi mhm. seen circuit de production mhm. ñooñu ñëpp dañ ci yéeg seen bopp billet d'avion yeeg billet d'avion yeeg ba ci ba ci ba ci agence de communication yeeg ba ci ba ci ba ci ñii par exemple ñi nga xam ne imaginel euh, ñi site d'hébergement yi nga xam ne peut-être ña nga fële ca euh, États-Unis wala feneen ak feneen ñooñu ñëpp dañ ci yëg seen bopp mm-hmm. donc dimension bi dafa yaatu waaye mm-hmm. nag dafa am loo xam ne mm-hmm. répercussion direct yi da yoon man ci sama xalaat bu gàtt mooy ñu ñëw ba pare dëkk bi du ci du ci du ci am benn retombée bi te loolu nag organisation lay doon rek mhm. te xam naa ne njort naa sax nag ne ñi ciy xalaat bari na borom yi kàngam yu bare bari yu mhm, ciy xalaat macha allah mhm. te jàpp naa ne ci su toqee ci nopp yam war a dem rek alhamdulilah mën naa saafara waaye li ci nekk mooy maanaam euh, soo gisee euh, ba luy ñëw parce que Euh, soo xoolee aussi day am benn aspect dégradation bu muy defaale parce que ki mm-hmm. indi ay emballage am mm-hmm. plastique wala leneen ak leneen mm-hmm. ñu bàyyi ko fi consommer ko fi ba pare euh, indi na euh, insalubrité wala leneen ak leneen kon dafay yoon ñooñu aussi ñu am benn tax boo xam ne dañ koy war a fay ngir loo xam ne au service de la communauté léegi nag loolu dafa war a yaatu ba. Mhm. lépp ci organisation la. léegi li ngay njëkk a xam mooy kon retombées yi. Mhm. ak fan lay jóge mhm. ak ñen ñoo ci jariñoo. su boobaa peut-être benn waxtaan lay doon. boo xam ne euh, du doon nag lu ñuy jafeel lool parce que sëñ Tuubaa itam. Euh, alhamdulillah sant gi. ñëpp ci war a yëg seen bopp muy entreprise yi parce que foofu tamit lu am solo la gis nga soo demee États-Unis wala euh, peut-être Europe. bi industrie de l'automobile amee problème. niñ ko ni ñu résoudre problème bi souvent mooy fexe booster consommation mhm. booster consommation à travers ay bon wala crédit wala facilité mhm. euh, maanaam accès ci oto wala ci lu mel noonu mhm. ba nit ñi di ko consommer léegi nag fii naturellement lay booster consommation bi Magal Touba naturellement c'est-à-dire que agent wala industrie boo mën a gis rek Mm-hmm. maanaam da da ci yëg boppam bu baax a baax. Mm-hmm. ci ndox meeg mm-hmm. boisson beeg. kuy lim maanaam lépp rek foo gis ci Sénégal. dina ci yëg boppam. ba ci industrie pétrole bi ak carburant bi nit ñi consommer di ñëw ak yooyu. léegi nag booster consommation boobu màggal gi di def. impact boobu. c'est-à-dire que am réew dafa waroon a financer. c'est-à-dire que état du Sénégal. da ko waroon a waroon a def ay euh, politique stratégie d'incitation. yu mel noonu. pour mën a am consommation. situation boobu. mais par contre problème bi am nag mooy. est-ce que consommation bi retombée bi. nekkul euh, benn économie bu extravertie. mooy est-ce que déployer nañ en amont. ay stratégie d'industrialisation. parce que loolu c'est un problème. gis nga euh, Touba. Euh, problème emploi daf fi am. nit ñi macha allah euh, bëgg nañ yoon wi bëgg nañ lu baax ñi ngi lu koo ci gis. Mhm. mi ngi dem fu ne. Mhm. ngir mën a euh, teral njaboot gi. Mhm. waaye euh, dafa dese am. fu nit mën a jàpp pour liggéey. ay usine ak wala ay usine ak yu mel noonu. te pour pourtant màggalu Tuubaa gi ci cant gii rek. mënoon na koo résoudre. à moitié en tout cas. mooy lan mooy ñu xool par exemple li ñu war a consommer ci màggal gi. ñu ne ah lii kat lii ak lii ak lii. et puis pas sax des fermes. yoo xam si ci am mais mais au delà même au delà c' est à dire que yi ñuy consommer lépp. Mhm. jàpp naa ne suñ ko produireul ci Touba itam ci périphérie bi. Mhm. warees na cee mën a produire au moins cinquante pour cent yi. Mhm. kon am na ay murit yoo xam ne war nañoo toog def euh, initiative. créer ay industrie boisson. nit ñi di dem di ca liggéey. di ci yëg seen bopp. ñeneen ñi créer li nga wax ni ay ferme ay tool. ay leneen ak leneen ba ci ba ci euh, maanaam euh, nécessité yëpp yi ñuy utiliser ci màggal gi mhm. ñu teel ko répertorier mhm. def ci travail mhm. bu ci nekk aussi ñu xam yan expert ñoo nekk ci domaine boobu ñu fexe aussi appuyer leen que ce soit ci ci euh, niñ koy waxee en nature ou en industrie ou en numéraire comme ça ñu fexe booloo créer loolu mm-hmm. ngir ëllëg ngi ci biir mm-hmm. lii retombé ci màggal gi aussi mm-hmm. mën a dellusiwaat ci communauté bi siwaat ci réew mi c'est très important c'est très important loolu tamit du mënta mënta nekk tamit loo xam si dañuy bàyyi xel wala boog dañuy bàyyi ginnaaw société yi nga xooye ndax dañ ciy am seen chiffre d'affaires yu baax ndax boo xoolee rek euh, keroog man ba mu tawee daanaka saret trois cent fay naa ko yaa fa leen sax dañ ciy gis seen bopp bu baax baax moo xam ci oto yeeg waaye réseau de télécommunication yi mm-hmm. ak yeneen ak yeneen même mm-hmm. ñoo xam sax bu ñu ñëw peut-être à travers la publicité un peu mm-hmm. euh, mis en catimini nga xam si tey mën nañ la jox ndox euh, tegal la ko fii ci caméra bi nga gis si seen logo muy jaarate ñoom daanaka ñoom xam nañ li ñuy def te mi ngi ko jox xëy na mën ngaa bañ a ñàkk xam loolu tamit nekkul loo xam si dañ koo ko lu rafet la waaye li ci gën a am solo mooy bokk na ci daal yooyu boo leen dajal bu ñu dajale woon ñi nga wax nii dafa ak ñoom CRD waxtaan ak ñoom ku ci nekk ndax euh, tey orange wala keneen ak sax ci tudd gi waaye mën ngaa gis ni kii nii màggal gi dana def suuf defar wax yow looy gis sa bopp toogee yow moom waxtaan ko màggal gi dañ ci am nangam léegi lii pourcentage bi day dugg si surtout waa jàpp naa ñoom sax duñ ko duñ ko duñ ko bañ waaye daal jàpp liggéey foofu la war a toll bañ a bañ a toog rek naan gi dana dugal nangam rek waaye bu waaye xaw a weñ seen loxo tamit waxtaan ak ñoom ndax ñoom duñ ko bañ ndax xam nañ ni di ñuy am ci ay chiffre d'affaires ci màggal gi dana néew ñu am ko at mi ci yeneen activité te loolu wax dëgg day nekk participation préoccupation boo xam si mhm. ndax bu Touba jagee mhm. maam Sénégal la jagal ñëpp la jagal mhm. ndax yàlla day ñaan da dafay def ñu am ay yéene di ko fekk ay déwén yu bëree bëri te développement Touba mooy développement réew mi mooy développement mboolem kër kilifa yi nga xam si ak kilifa diine yi nga xam si ñoo bokk Sénégal que sa yàlla xam naa ñi ngi ñëw suñu jeexantal euh, émission bi waaye dañuy ñëw rek ci euh, l'objectif final de de de mhm. mooy naka lañ mën a def ba yee nit ñi. Mhm. ñu xaw a yeewu ñi nga xam si dañuy. Mhm. gëmm wala ñu nelaw. ñu xam dëgg-dëgg naka la ñuy màggalee. ak ci ban anam lañ ko war a defee. macha allah. xam naa fi nga fi nga mujjee rek. ma sànniwaat ci benn kàddu. mooy par rapport ak euh, Serigne Touba moom. xam nga dimension universelle la nekk. dimension universelle bi nag mooy. ñëpp xaj nañ ci. entreprise bi nga xam ne ka fa nekk sax. du jullit wala nangam. ci ci ñaanuk Serigne Touba irham jami al wara googu ci lay dugg mhm. kon su ci yegee boppam mhm. mbégte communauté bi la mhm. waaye nag daf ci am loo xam ne fa muy xewe eh, dana fa am men benn dégradation progressive comme impact impact boobu nag kon yow fa ngay màggale muy Touba war nañoo fexe ba eh, goney Touba ak ndawi tuubaa ak eh, ñi fi nekk yëg ci seen bopp bu baax a baax a baax. Mm-hmm, mm-hmm. te loolu à travers fondation yi ngay wax ni ak entreprise yi nga xam ne dañuy am chiffre d'affaires bu élevé ci màggalu Touba. Mm-hmm. mën nañ am ci seen i fondation yoo xam ne. pour eh, peut-être ay centre d'incubation wala yu mel noonu ngir delloowaat ko ci dëkk bi être loolu sa liggéeyu. ñi ñi yor eh, organisation bi la commune beeg yu mel noonu. ngir inciter leen ñu delloowaat ko ci dëkk bi à travers des centres d'incubation. wala créer emploi boo xam ne yoo xam ne peut-être ci. yoo xam ne ñoom ay intermédiaires yi entreprise boobu la ñuy doon loolu lépp comme Dubaï gis nga wala feneen mhm. am na nu ñuy defee ba seen doomu dëkk mhm. entreprise bu ñëw man ci yegg seen bopp mhm, léegi nag tout en euh, sachant que euh, Touba ci biir Sénégal la bokk donc stratégie boobu aussi ndawi Sénégal yëpp lañ ciy bàyyiwaale xel ndax léeg-léeg itam day indi tuuma googu ñu jàpp ne euh, dañoo bëgg a beru wala yu mel noonu Touba dëkk bu spécifique la loolu suñu borom a ko def kenn mënu ci dara dëkk bu spécifique la. Mm-hmm. Euh, ca création parce que dëkk yu bëree bari nañ leen di sampe. Mm-hmm. mooy ka koy samp. Mm-hmm. day dem wuti point d'eau. wala wuti fu richesse nekk. waaye kii ngir daw lépp tax mu créé ko. kon moom kenn ba lépp fekk si ko fa. léegi lu man euh, mënta ñàkk spécifique. kon ñu bàyyi ci xel. Euh, léegi nag li ngay wax nii ci naka lañuy ñuy màggale. lu am solo la ndax màggal dafa am ay dimension yu bëri. lenn li nag maanaam kii ñëw. maanaam kii ñëw màggal si Touba. Mhm. ren. Mhm. ba déwén. Mhm. te amul yëgul benn coppiku ci boppam. jàpp naa ne war naa xoolaat boppam. ndax ki nga xam ne lii la dund. dundu épreuve yu metti jaar jaari àddunaam. ba fi mu mujjee yow nga ñëw. ne da nga koy sant la si sama borom. ba pare ñëw jàppe ne ay caaxaan la wala folklore wala coow. am na ñoo xam ne dañuy ñëw wër ba sonn. jëlaat seen oto dem. <laughs> waa léegi ki nga xam ne moom fi mu tegoon julli. nga xam ne kafewu ko woon mhm. foowu ko woon mhm. Mhm. léppam maanaam ci waxtu julli ba ci julli géej géej lépp ngir fonk waxtu julli nga ñëw màggal si ba dem ne rate naa fa waxtu julli yaa ngi tooñ Sëñ Tuubaa wala boo comprendre dëgg-dëgg sens màggal ki nga xam ne maanaam euh, ni mu fonke woon alxuraan nga ñëw màggal si te barkeel ci loolu ki nga xam ne ni mu fonke woon doomu aadama di ko teral nga ñëw màggal si di xuloo wala di werante wala di xeex mhm. wala di saajante comme ni nga koy gisee ji léeg-léeg mhm. wala ki nga xam ne sax day ñëw bëgg tafu yëfi jàmbur mhm. euh, maanaam Serigne Touba dafa woote ngir defar doomu aadama ngir ay valeur yu doomu aadama war a am wax na ko sax ne euh, fu mel ne euh, fi liñ naan jawaabu sëñ la dafay wax ne wàllu yi dëgg sax li leen di yóbbu ci yàlla ay ay ay teggin la teggin yooyu nag kon yow boo ñëwee ci màggal gi indi ko fi jële woo ko fi mhm. kon yaakaar naa war ngaa xoolaat sa bopp mhm. sant la yàlla la wax mhm. sant yàlla nag àndut ak di tooñ yàlla kon euh, loolu rek lañ ci bëggoon wax macha allah suñu Aliou mu nekkoon suñu Aliou Mbacke wax dëgg yàlla suñu borom def mu nekk bindkat nekk gëstukat bokk ci membre yi ñu association des écrivains de la Mouridiyya AM comme ni ngeen koy déggee wala boog ni ngeen koy gisee rek fan yi yëpp ñu ànd ko Moukhaddamatoul Khidma ak Rawdu Rayaahin waxtaan yu am solo ak ay présentation d'ouvrage sur la Mouridiyya ak ay yi nga xam si Euh, jumaay Touba tàmbali bi ñu ko taxawal liggéey bi évolution bi fi mu toll ànd kooku waa MK MK TV ak GMT TV ñu ngi leen jox dig daje incha allah ci kanam tuuti ak yeneen panel jërë ngeen jëf.